liggéey comme ñëpp kon na ngeen farlu ci jaamu yàlla ma ndax ne da yaakaar ne julli rek mooy jaamu yàlla yàlla de du lekk ci ndab loolu ndax da ngeen yaakaar ne woor rek mooy jaamu yàlla yàlla du lekk ci ndab loolu ndax da ngeen yaakaar ne aji màkk ak génne asaka rek mooy jaamu yàlla yàlla du lekk ci ndab loolu yàlla moom moo wax ne inna laa wa malaikatahu yusalluuna ala nabi yaa ayuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman wax nañu ne uskuru llaha kathiran alladina yadkuruna laa qiyaman wa quudan wa ala junubihim yatafakkarun mu ne kon na ngeen xam ne tudd yàlla taxaw man nga ci nekk ak moom toog man nga ci nekk di tudd yàlla xataa boo tëddee man ngay tudd yàlla ñàkkaa teew sax bu nga tey tudd yàlla yow na nga tudd yàlla rek te fexeel bu bari faw dana la jëriñ waxuma ne whatsapp baaxul ndax danay dimbale ñu bari waaye ëppal ko ba perte sa temps ci yàlla daf lay delloo ginnaaw rek te fekk gaa yaa nekk kanam ragal leen yàlla ci ci lu feeñ ak ci lu nëbb bëggante leen te yàlla rek tax yërëmante leen te yàlla tax na ngeen kennal yàlla te kenn du moom du kenn yàlla moom lam yelit walam yuulat walam yakun lahu kufuwan ahad te foofu rek la ñu bàyyi yóbbu maa ngi leen di dénk di dénk sama bopp Baye Ndiaye wax nga ci jabar bi baax loolu sarax la ñeel képp ku ko am waaye ku yàlla na too jabar ju bon itam yàlla fas na laa yéegee ci maqaama yi gën a kawe bu fekkee ne muñ nga yàlla yàlla dimbale ñu ku yàlla na too jabar ju baax sante ko yàlla bu la na toog bon itam sante ko yàlla ndax yàlla ku jox ab xen rek dina la mutal ab déeñ da ngay seet saliqa nim baaxe woon feeñal cofeel ci sayiduna yusuf alayhi salaatu wasalaam bañ yaakaar ne dafa dof moo ngoro yusufa ba yusufa dem ci kaso fan la mujj màggat ba kumur keroog bi Yuusufa donnee nguur gi moom dafa topp ci ginnaawam di ko wow ñu ne ko Yuusuf uyul màggat mi lay woo Yuusuf na ko gaawal wax sa soxla yàlla faj ko léegi mu ne li ma bëgg mënta ne mu ne ah kay mu ne gën naa ci li ma bëgg a ne man li ma bëgg loolu mënul nekk. sa xol bi te nga dékk sa loxo bi sa loxo xol bi ci yàlla te nga wax lan nga bëgg. Youssouf na ko ubbil sa xol bi te nga dékk sa loxo xol bi ci yàlla te nga wax li nga bëgg. mu ne ko damaa bëgg a delluwaat xale. ba maase ak yow. nga takk ma. ma sëyal la te yàlla rek tax. mbëggeel gi ma la bëggoon. tey laa la gën a bëgg. mu ne ko yow la kan. mu ne ko man la sariixa Yuusufa daal di wax subhanallah. Yuusufa daal di wax subhanallah. daal di ñaan yàlla. mu delloo Zaliqa ca ngoneem ga. delloo ko ca taaram ba. delloo ko ca cofeelam ga ak rafetaayam bu rafet ba. ak dëgëraayam. jur na ak Yuusufa ñaari doom. benn doom bi. moom moo jur rahmatu ayuba alayhi salaam moom moo ko takkoon kon jabaru ayuba sëtu yusufa la ma war na nag ci jabar ju baax xoola rahmatu moomu nattu yàlla dal na ci kawam bi nga xamee ne ayuba alayhi salaam nattu yàlla dal na ci kawam dana toom boobu yonente yu bari dagaan nañ ko yàlla ngir mu teg leen ko yàlla na leen sama waa ji laa ko dencal xoolal yàlla ak waayam ji ni mu ko teg feebar loo ko fukki at ak juróom-ñett dem na ba yaram bi def ay sax sax yi di ko lekk boo waa dëkkam génnee ko ndax dañ koo seetlu rahmatu rek moo desoon ci jabar ya ñëpp dem nañ moom moo ko desoon dem na bay dagg jubbo bi di ko jaay jubbu yooyu fukki jubbu la ak ñaar moom moo wecc tur wi. yi ñu tuddee umu Moussa yi. moo wecc. fukki bëti ndox yi ak ñaar yi Moussa xarewoon Baaru Xalsum. fukki bëti ndox yi ak ñaar yi Moussa xaroon ci Baaru Xalsum. jubbu yooya. jubbu yooya.